abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar wér te ci réew mi ak ci bitim réew. ak président Macky Sall mi nguuram di jeex waaye nag nguuram na mu neexee du jeex neexaay ba ndaxte nguur moom. Mhm. macha allah ndaxte président Macky Sall ginnaaw bu fi jógee am na lu koy xaar lu toll ci ñeent fukki millions. yoo xam ne ci kopparu CFA at mu ne mën na koy jot teg ci di tukki di dem di dikk nguur gi daal ak leneen loo xam ne mën na ci tegu ca bitim réew ndaxte mën nañ ko xàllal ba institution yu bari ya nekk ci bitim réew mu jiite ko moom président Macky Sall mu mel ne nguur gi mën na jeexee Sénégal waaye day mel ne day wéy ba faw loolu la yéenekaay bi di Walf Quotidien wax nguur googu nag ki ko ci bëgg a wutu du kenn ku dul Ousmane Sonko démb waxtaan na ak tubaab yu France 24 moom Ousmane Sonko njiitu Pastef démb nag nee na moom candidat la bu nekkul candidat réew mi mën na dugg ci guta looloo gën a fes ci yéenekaay bi di Walf Quotidien yor-yor bi feelu na ko. yor-yor ak Ousmane Sonko mu ne mën nañu dem ci kaaw bu dee ni moom nekkul la candidat moom njiitu Pastef fa démb ci waxtaan wi mu séq ak yéenekaay bi di France 24. le mandat lum ñu jukkil. le mandat dellusiwaat euh, ci waa F24 euh, mu mel ne ñoom bu doon ni ay bal la ñuy dóor seeni i bal jeex na solaat nañu nag ngir mën a dóor yeneen i bal mm-hmm. nee na nag ginnaaw troisième mandat boo xam ne am nañ ci ndam li jëm ci détenu politique yi ñu ci kaso bi mbiri Ousmane Sonko ak li jëm ci ñenn ñoo xam ne ñi ngi ci wàllu ko yoon bëgg nañ daal ñu raxas leen ba ñu set mm-hmm. nee na ñoom loolu seen ko yittee ginnaaw mandat bi xeex bi day wéy waaye xeex boobu le war na cee bokk mbir yi mbiri Birame Souleye Diop su lay Diop nag mi fecc ba génn géew bi moo tax yéene kaay bi di la mandat dellu si waat ci nee na waa Pastef daf mel ne danoo yara dal moo tax yar wi di leen dal saa su ne bokk na ci yëkkati ay kàddu yoo xam ne tamit yenn saa yi day ñagas ba du leen jural lu jëm ci wàllu ku yoon mu mel ne Pastef naam parti bu mag la waaye am na lu ñu war a génne ci seen biir maanaam defaraat seen i wax ba du dugal kaso. critique la mu xëy wax. Euh, li cri yéenekaay bi di critique dellu soit ci président Macky Sall ak li jëm ci assemblée nationale bu Sénégal président Macky Sall nag la may faral di wax naan day dem waaye dina yóbbaale ñu bari ndaxte assemblée bi weeru ko décembre mën na kaa tas tasar ngir waajal beneen njiitu réew bi fiy teew ndaxte beneen njiitu réew day soxla beneen assemblée boo xam ne mën na doon ab ndëgër laayam kon président Macky Sall weeru ko décembre bu dee ni tas na assemblée bi yéen kaay bi di la critique ne bu mu bett kenn. Euh, yéen kaay bi di réew mi euh, quotidien. yéen kaay bi di réew mi quotidien ne li jëm ci jaloo ak kii di président Macky Sall Ousmane Sonko ibil na ko ab buntu ndaxte nee na dina jéggale dina baale waaye nag daf ci am loo xam du ko nangu maanaam ñàkk bokk ci élection mu na loolu mun na jur fitna ci mi réew di Sénégal. Euh, source alam ñëw jukkil. source a wax nag lu doy waar ci kii di Ousmane Sonko lan moo waral ba tey jii kenn teg ko loxo mhm. mu mel ne nguur gi loolu nguur gi la neex ndaxte nguur gi kayit gi leen joxoon ginnaaw ba Maham Diallo yëkkati ordonnance de renvoi bi ne prise de corps nañ jëli Ousmane Sonko buñ ko jëli woon ba mu dem taxaw ca procès ba bu procès ba jeexee att bi yëpp day nasax jeex tàkk moo tax nguur gi amul woon intérêt ngir jëli ko li ñu bëggoon mooy yokk ay jafe-jafe moo tax ñu bàyyi ko mu nekk ci liberté moom kooku la di Ousmane Sonko loolu di xibaar boo xam ne source a mooy ki ñu ko jox waaye tamit président Macky Sall lu doy waar démb am na mooy ba mu dajee ak secrétariat exécutif bu APR di Alliance pour la République moom jiitu réew mi doon waaye kii di Abdoulaye Daouda Diallo Aliou Nguy Ndiaye ba ci Amadou Ba kenn yëkkatiwul kàddu kenn waxul jëm ci lenn jiitu réewum président Macky Sall nag ne comme mënuñoo wax fii képp koo xam ne bëgg nga doon candidat ngir mën ko wutu defal ab dossier yónnee ko ko bu boobaa ñu càmbar ko xool tànn kan moo gën ci parti bii di APR. l'observateur lam ñu xëyee. l'observateur sax dellu si waat ci mbir moomu lay ak li jëm ci gestion politique bu état bi ak président Macky Sall la waaj doon wax naan. bu dee ni Macky Sall yoroon na ab jaasi léegi mbar mi la dese ndaxte juróom-ñeenti weer balaa mi egg euh, ci jeexal nguur gi président Macky Sall ay mbiram nag du yomb ndaxte gars yi boo yorutul décret ñu xam ne da ngay dem. na sa kàddu daan dëgëree ak fulla ga nga daan wane ak ni la daan déggalee day jeex ndaxte li jëm ci wàllu autorité am na loo xam ne boo ko santatee nit day bañ waaye te li jëm ci yenn décision yi boo ko naree jël am na ci ñoo xam ne duñ ci ànd ndaxte dañuy jàpp ni nguur ga taxoon nga jiite leen wala nga leen di jaay doole wala boog nga yilif leen nguur googu ngi jeex kon daf ci am loo xam ne boo leen ko santee ñoom duñ ko defati waaye nag ñii di waa parti socialiste dafa mel ne ñi ngay wéy di jox bopp kii di kii di président Macky Sall ndaxte waa presse ña nga ca ban jaxle noonu la ko yéenekaay bi di l'Observateur waxee ndaxte nee na waa presse nee na ñi ngi dëggal seen bopp ci biir bennoo waaye nag kaddu gu mujj gi ñi ngi ko bàyyee que kii di Aminata Mbengue Ndiaye bu waxtaaneek ak Macky ba ñu juboo lu ñu juboo rek ñoom ànd nañ. Les ko lu ñu xëyee. Les ko nag wax ni Ousmane ko ma ngay nooyal ah. ma ngay nooyal euh, maanaam di tëmbal glace ndaxte nee na daal du toppee président Macky Sall ak njabootam dara nee na daal lépp lu mën a am rek dina leen ko bàyyi waaye nag ma ngay artu nee na nag réew mi dalam mu ngi rek euh, sukkandiku ci moom mu bokk ci ay élection mu ne lépp loo xam ne mun na dalal réew mi dina ko def waaye nag élection yoo xam ne Sonko di ci bokk mun na jur fitna moom président Macky Sall mi bëgg wutu nag neena na bu ginnaaw bu jugee ci bopp réew mi nee na ci Sénégal gi lay duju toog fi réegu ci Afrique nee na loolu lu wóor la demul fenn ndaxte nag moom du tudd jéeri du mbadantaan ci réew mi la bokk kon du fi jóge di dem fenn moom kooku di président Macky Sall yéenekaay bi di 24 heures le vingt bi di 24 heures wax naka ci APR PDS PS Rewmi Taxawu Pastef APR ñoom ñëpp ci présidentielle deux mille vingt quatre gars yi dañuy ŋaang rek waaye waxaguñ dara ndaxte nag ku mu ne ci ñoom da daf ci am loo xam ne yaa ngeek moom ci wàllu yoon am na ci loo xam ne moo la tënk kon waat kitaabu nit naa bokk wóorul kenn ci ñoom moo tax jamono yi parti yooyu le xamuñu ban tànk la ñuy fecce ak kan mooy doon seen ko candidat. enquête lam ñu enquêtal enquête nag wax ci président Macky Sall ci forum Invest Sénégal démb mu dajale fi ay njiitu réew yu bari ci Afrique wax ci Afrique ak nan fa seen doxe président Macky Sall nag yéenekaay bi ne mi ngi doxee na mu ko neexee mm-hmm. euh, Ousmane Sonko tamit mu ngi ci yéenekaay bi di enquête euh, ginnaaw waxtaan ak France vingt 24 mu ne élection du am bu dee ne moom du ci bokk. waaye nag nee na daal euh, fii ci réew di Sénégal jàpp na ni daal lépp loo xam ne am na rek euh, daal ci jàmm lay mujj ndaxte dafa gis ni du toppee président Macky Sall dara moom kooku lee di Ousmane Sonko. ay kaddoom la ñu fekk ci Sud Quotidien. moom Ousmane Sonko ne daal kii di président Macky Sall bu dee ni daf fi nar a tëgg ay élections yu bokkul loolu mun na jur kaw ci réew di Sénégal yéen i kaay groupe Sud Communication bi ne. Sonko droit dans ses bottes maanaam Sonko jamono yi. ab ay tànkam dëgër na. loolu la yéene kaay bi di Sud Quotidien di xibaar ñu. Euh, le quotidien lam ñu faram-fàcceel. nee na ginnaaw bu fi jógee moom président Macky Sall dundam après président de la République mu ne dina def Sénégal teg ci dina nekk daal koo xam ne du euh, dem rek bàyyi réew mi nee na ki fi wutu. dina ko tàllal loxo ngir ñu waxtaan bu dee soxla na xalaatam ak i conseil mhm. moom président Macky Sall dina ko ko jox kon na bokkul ci président yi jugee ci réew mi rek wan réew mi ginnaaw. foo moom la xëyee. waaw moom tamit wax na ci investisseurs yi maanaam daal ñi mu jàpp ni war na mën a dugal seen xaalis euh, ci mu réew di Sénégal président Macky Sall maa ngi dalal seen xel di leen wax ni Sénégal réewum jàmm la réew mu dal la. kon nag gars yi nañ fi dugal milliards yi. yéen a kii di stade euh, lañ koy jeexalee. ñu wax ci mbiri milliards ak sunu gaynde yi ay Sadio Mané ay mbenni nag ñoom ñoo nekkoon ca kaw. Hmm. waaye nag li naan daal euh, ab làmb moom ku ci yàgg rek ku la mën fekk la ci te garab ci kaw lay fekkante temps yi Jackson Mendy moo xew. Hmm. mooy Nicolas Jackson mu nga ca Chelsea ndaxte transfert bu riche la am ndaxte mën nañu wax ni lu toll ci vingt neuf virgule cinq ci milliards. moom ci at mu ne kooku di Sadio Mané dina ko jot bu dee bulaay ja moom tamit ay mbiram ma ngay dox bu dee kii di Kalidou Gana ñoom nag euh, seen njëkk dafa wàcc. Hmm. te nag loolooy jikko ja loolu du jikko jamono la. Hmm. ndaxte àddina moom yenn saay hmm. mu neex a neex ba jaaxal la waaye yenn saay mu jafe ba nga jàpp ni. yàlla da laa fàtte. mangog wane leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar ci réew mi ak ci bitim